maa ngi tudd Mouhamed Dia di membre des cadres de Gëm sa bopp mais aujourd'hui le plus important moom mooy ne régime actuel bi lu muy acharné woo sur euh, population sénégalaise bi mhm. et je pense que ku mu inquiété wul euh, war nga poser wu la question le le pourquoi Euh, je pense que au jour d'aujourd'hui lu ñu war a alerter moom mooy ne di à monsieur Ousmane Sonko mu fàttaliku l'histoire récente de ce pays mhm. euh, parce que fàtte xëju fii fàtte xëju fi et il y a euh, de cela six mois que sénégalais bi yëpp fàttaliku na Ousmane Sonko naka lañ ko sénégalais yi euh, taxawoo naka la ko tax sénégalais yi euh, joxe woon loxo si régime précédent bi donc sénégalais bu nekk tey da nga am mbetteel parce que yaakaaroon nañ ne Ousmane Sonko une fois au pouvoir ah lii nii Sénégal day weesu ponk yii nii mais nag man du ma parce que lu ko manqué moom mooy être un leader si je dis que Ousmane Sonko n'est pas un leader que il faut que je sois beaucoup plus explicite un leader c'est quelqu'un ki nga xam ne am na la capacité d'être équidistant entre son pouvoir et ses devoirs le gars c'est c'est ça qui lui manque c'est ça qui lui manque parce que man dama jàpp ne moom il utilise son pouvoir mais dafay fàtte ses ses devoirs mm-hmm. tey le sénégalais lambda am na beneen préoccupation lu dul ñëw toog fii di xaar de de de sept heures trente à dix huit heures di xaar ay nit yuñ yuñ yuñ téye mm-hmm. tey préoccupation yi moom mooy ne que ne le sénégalais lambda dafa xiif dafa sonn moom mooy lu ñu koy xaare moom mooy ne dund gu métti lu ñu koy xaaree moom mooy ne euh, location bu seer bi lu ñu koy xaaree moom mooy ne transport transport bi lu ñu koy xaaree mooy inondation yi léegi nag ñun xam nañ message am mooy ne mais piège bu mu ñu tànd duñ si duñ si duñ si duñ si tombe Bougane Gueye monsieur le président Bougane Gueye Dany euh, monsieur Cheikh Yirim Seck euh, monsieur euh, Kader Dia et monsieur commissaire Kayta ñoom ñëpp tey am na nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo am les prérogatives taxawu leen muy les avocats ñoo ngi def seen liggéey ñun en tant que des les militants en tant que opposants am na lu ñuy xaar qu'il sache que lu muy def nii ñun ñu divertir lu ñun lu ñu def du ñu divertir parce que bientôt le 17 novembre si loolu la ñuy jëm si loolu la ñuy taxaw ñii nii a ah, defuñ loo xamante ni war na leen teg fii nii donc ñi nga xamante ni ñoom ñoo am les prérogatives taxawu loolu dinañ leen taxawu ñun en tant que opposant li ñuy xaar moom la ñuy si loolu la ñuy taxaw si loolu la ñuy taxaw te sénégalais yi xam nañ na nit ki nga xamante ni da nga ko jox benn baaraam mu mu këttat ko kooku soo ko joxee loxo da ngay kuuñ loolu nag maa ngi koy j'invite à tous les sénégalais xam ne Sénégal fii nii du du du Bénin moo tax Burkina <laughs> moo tax euh, euh, l'honorable député Guy Marius Sagna ba mu yaakaaree ne luñ ko permettre biir Sénégal su génnee ailleurs dina ko fa def mu jàll gis na lu ko fa fekk. Ah Sénégal du Burkina, Sénégal du Bénin, Sénégal du Congo. Ici, c'est le Sénégal. C'est le pays de Léopold Sédar Senghor. Ici, le Sénégal. C'est le pays de Michel Abdou Diouf. Ici, le Sénégal. Ici, c'est le Sénégal. C'est le pays de Sounou Papa Di Aduna Bouyagoul, Mouy Amadou Mahtan Bou, le premier président de l'UNESCO. Mhm. Donc, Ousmane Sonko, nous n'avons pas ce pays-là en arrière. Lolo, nous n'avons pas Nangu tey nous n'avons pas suba j'invite à les à tous les tout le peuple sénégalais mu xam ne kii nii nekkul nit ku ñu jox lépp man lenn rek la Ousmane ko wax muy lu cohérent hmm. ma koy jàppee comme historien moo mooy ne le le pouvoir exécutif c'est pas nécessaire qu'on leur donne le pouvoir législatif pour avoir une des institutions équidistantes donnons le pouvoir législatif aux opposants moom moo ko wax moom moo ko wax en tant que un nombre réfléchi foofu rek la nekkee un homme réfléchi un homme euh, euh, d'histoire man j'invite à tous les sénégalais ñu topp Ousmane Sonko ci waxam ju sell jooju noonu que ne le pouvoir législatif nañ ko jox l'opposition du Sénégal merci à vous tous. exactement euh, naka ngeen gisee décision bi nga xam ne mujj nañ koo jël. waaw euh, maa ngi tudd le président Bougane Cheikh Omar Dramé nekk le délégué national chargé des jeunesses de Gëm sa bopp. Euh, ma di wax ni alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin ba ñetti yoon parce que suñu leader ñun dañoo foogoon ni sax leneen lañ koy toppee maanaam toppewuñu ko ndax dafa siif ab benn xale jigéen luñ ko toppee mooy lan d'après ñenn ci avokaay yi injure publique ak diffamation donc injure publique soo ko naree tekki ci wolof mooy lan ñu ne ko dafa saaga ab nit waaye ñun lu ñu jaaxal soo nee saaga ngeen baal ma ci kàddu yéen xam ngeen saaga lu mu tekki ci olof mooy damay daf li damay ndangam sangam bugguma ko yeggali waaye lu mu wax ci conférence de presse bu mu mujjee organiser mooy lan mooy dafa jiin le président di PASTEF mooy day wër Sénégal bu ma ko war a reprendre de manière littérale day wër di fen ànd ak ñuy fen moomu mu leen fen léegi dama leen di laajte ci sartu ndeyu réew mi ci code pénal ci code procédure pénale ci code des obligations civiles et commerciales ci traité international internationaux Sénégal signé ana fan la ñu bindee soo waxee nit ki da ngay fen loolu ñu daal di ko qualifier ab saaga wax leen ma ko amul fen fu ñu bindee ci constitution soo ne nit ki dangay ngay fen loolu saaga la te bugaan mii liñ koy topp dañ ko ne day fen day day day sos day fen injure publique kenn mënul génnee vidéo bi nga xamante ni foofu la bugaan saaga kilifa réew mi day fen loolu kenn mënu ko comparer ak véritablement saaga donc xam ngeen ni lii yëfu caaxaan la lii intimidation la lii restriction liberté individuelle la lii restriction liberté d'expression la ñun dañoo foogoon ni Sénégal les priorités doivent être ailleurs les salaires sont misérables nit ñi amuñu liggéey presse bi dañ leen di bâillonner émigration irrégulière jeunesse yaa ngi dee ci géej bi loolu ma foog ni les priorités doivent être ailleurs mais pas di jàpp ay nit parce que tout simplement da nga jàpp ni c'est un ki qui dérange maintenant ñun li ñu war a def xam nañ ko ñun li ñu war a def xam nañ ko mais les nouveaux gouvernements nañu delloo ci seen xel parce que du nii la ñuy yore réew mi soo yore réew mi da ngaa war a nangu ñu lay critiquer mais du ñoom ñoo ñu war a wax ñun lan lañu war a opposé ndax liñ koy jiit nii amul bu dee ab saaga la nañu génnee vidéo fu mu saaga amul y en a pas donc intimidation la recul démocratique la lii gàcce la pour senegal merci beaucoup. merci merci beaucoup. Euh, ku ne xam na ne tey jii ñun lu ñu soxla mooy. dañuy soxla mooy gis ki nga xamante moom mooy Bougane Gueye Dany ak Kédougou ndax ñun waa Kédougou la ñu Bougane Gueye Dany ji ñu teraanga ji ñu teraanga bu am am solo biir Kédougou waa Kédougou di xaar élection législative yi ñëw yàkkamtee gis Bougane Gueye Dany biir Kédougou tey bu ñu taxawee ñu ne Bougane Gueye Dany mi ngi fii si eh, ñu ngi koy fas yéene téye doon na loo xamante ne lu ñu métti la mm-hmm. Ousmane Sonko na xam na ne injustice moo taxoon ñu votel ko mm-hmm. injustice boobu bu teg ay doomu aadama dina euh, dina gis ñoo xamante ne quatre-vingt-quinze pour cent ñoo xamante ne dinañ delloo dinañ dellu si ginnaawam topp ñi nga xamante ñoom lay teg injustice boobu. Bougane Gueye Dany li mu def je ne pense pas que jar tey jii ñu koy owlo jar na tey jii ñu koy wax sax ne tey dafa dañ ko war a def garde à vue wala dañ ko war a téye heure bi waroon na fekk mu ñibbi bu yàgg a yàgg donc lii acharnement la acharnement la encore une fois nañu gëm na ne adduna bi day jeex. te ñoom injustice bi ñu jaax ba teg ba jot réew mi injustice boobu bu ñu ko nee dañ koy teg doomu aadama yi nañu wër ka ni fa ñu toog fa leen doomu aadama yooyu di teggi yóbbu leen fa alors dama leen di ñaan mooy Bougane gee Dany nañ ko libéré tout simplement mu dem ñibbi si ay njabootam Bougane Gueye Dany dañ ko soxla si li nga xamante ne moom mooy élection législative yi en tant que bokk si coalition sàmm sa jikko maa ngi demandé autorité yi di demander kilifa diine kilifa aada yi nañu bàyyi tout bu gan Gueye Dany mu ñibbi mu préparer li nga xamante moom mooy élection législative bi li nga xamante moom mooy opposition bi ñu mën a jël li nga xamante moom mooy ndam li jox ngeen jëf. merci beaucoup na keneen ñëw s'il te mu gaaw. Boubacar. leen tuuti micro war nga présenter voilà Boubacar Samb capitaine Boubacar Samb capitaine délégué national à l'engagement citoyen de Gëm sa bopp. salaamaaleykum mbokk yi euh, ñu ngi baalu àkku ñëpp. ñi nga xamante ni def nañ dérangement bi depuis su suba ñu ñëw accompagner le président Bougane Gueye fii nga xamante ni moom lañ ko convoqué woon muy cybercriminalité depuis ce suba nag enquêteurs yi ñu ngi ko doon déglu di ko poser façon question bu nekk bokk na nag si liñ koy toppee nee nañ injure maanaam saaga bokk na si diffamation maanaam tuumaal doomu aadama waaye lenn la ñuy indi si mbir moomu mm-hmm. mooy nu ñun dañuy jaar fa nga xamante ni moom la président Bougane jaaroon mooy ni réew mi dafa am ñoo xamante ni bañ koy wut mm-hmm. dañoo toog di fen ànd ak nit ñi di fen wër di fen bu fekkente ni nag si constitution wu Ousmane Sonko bu bees bii fen dañ ko ci tere wala si constitution wu Ousmane Sonko bii fen dafa nekk loo xamante ni tey jii nii moo boobu dañ ko criminaliser nañ ñu wax parce que nag comme ni ko président Bougane waxee rek ñun ragaluñu ko te don de soi lañ def jaay suñu bakkan pour Sénégal ndax Sénégal jaral nañu ko nouvelle bi wàcc léegi nag mooy ni le président Bougane Gueye a été placé en garde à vue mhm. maanaam nee nañ dañ koy yóbbu mu gisee ak le procureur procureur nag mooy saytu ndax da koy topp wala du ko topp waaye ñuy xamal nit ñi di xamal opinion nationale ak internationale que xeex bii nii du xeexu Bougane Gueye xeex bii nii xeex boo xamante ni mu ngi raam di dugg si kër gu nekk la xeex bii nii mooy xeexu ma Masamba di xeexu Mademba di xeexu ku munti doon si àdduna bi tey fu mu toll ndaxte tey sañ ngaa toog ak sa njaboot ñu ne la li nga doon seetaanee tele sa neexuñu ndaxte ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk tey réew mi ay buur lañ jàppee seen bopp may fàttali Ousmane Sonko ne ko bërki démb bañ koy wër pour jàpp ko moom moo doon daw di laaj ndimbal naan xale yi génn leen président Bougane nag il a grand newul kenn génn leen tey ñii fi ñëw ñëpp tey ñoo xamante ni gëm sa bopp lañ bokk ñoo xamante ni bokkuñu si gëm sa bopp ñoo xamante ni euh, coalition sàmm sa kàddu lañ bokk ñu siy gërëm Anta Babacar mi nga xamante ni dépp ci suba mu ngi fii di ci gërëm Thierno bokk mi nga xamante ni dépp ci suba mu ngi fi di ci gërëm Assane Diouf ak ñeneen ak ñeneen may fàttali les leaders de la coalition sàmm sa kàddu ni tey nee nañ ni président Bougane mais bu subaa ku munti doon si ñoom ñooñu noonu mën na nekk donc nag xeex boobu xeexu Sénégal la te ñoom lenn rek moo leen ñu déranger mooy ni tey ñëpp xam nañ ni trois mois yii nii ñu weesu yëpp président Bougane waxtaan na ak képp koo xamante ni kilifa nga fii nii tey si réew mi ils ont les informations ñoom ñoo yor tey jii nii li nga xamante ni moom la ñu yor wax ay services secrets ñu leen di jox les informations yi war donc xam nañ ni tey le président Bougane fait mal tey nag bu fekkente ni dañ ko bëgg a empêcher ndaxte un candidat la si élection locale euh, législative yii ni nga xamante ni lañ jëm may fàttali tey ñi nit ñi ni leen le président Bougane mii tey ñoom ñu téye fii tey dafa sut ñoom seen njor ndax am na ñu bëri ñoo xamante ni dañoo bëggoon yàq coalition bi hmm. ma leen xamal ni tey le président Bougane don de soi boobu mu doon def daf ko def placer boppam ci ginnaaw pour sauver rek coalition bi pour mu taxaw parce que ay xale lañ nag ay xale ñoo war a ànd ndax coalition bi ñan ñoo ko composé c'est Yewwi originel mooy ñi nga xamante ni ñoo doon ànd ak Ousmane Sonko démb ak bërki démb Ousmane Sonko wor leen tey moom mu taxaw tiit si ñooñu ak ñan mooy la jeune génération muy lan ñi nga xamante ni ñoo ànd ak askan wi may fàttali tey Ousmane Sonko bu fekkente ni tey coalition boobu noonu noonu la doon bañ mu taxaw yàq na ko ndaxte Bougane dafa fàtte boppam jiital ay raqam nekk seen ginnaaw gunge leen tey position bu liste bi génnee dinañ xam exactement le président Bougane naka la sauvé tey jii nii liste boobu ñu leen ñu wax ñu leen ñu wax ñu leen mën nañ ko téye mais téeméeri Bougane a ngi ci mbedd bi téeméeri Bougane mu ngi ci mbedd bi te nag xeex bi lu mu ko jaral moom Ousmane Sonko nañu ko jaral jërë ngeen jëf